bismillahi rahmaani rahim barkeb seyxanaa ahmad al xadim barkeb seyxanaa ahmad al xadim barkeb seyxanaa ahmad al jërëjëf seyxanaa ahmad al xadim eh, bokki jullit yi bokki taaliba yi ginnaaw bi jiitalee ci siyaar bi cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na fi yàgg te ku ak wér eh, comme noonu ñu ko waxee moom diaspora buñ ko waxee eh, moom diggante Amérique ak Europe Euh, faw xel yëpp dellu ci sunu jàmbaar ji muy l'ambassadeur lislaam muy sëriñ Mamour Mbakke mu Cheikh Mouhamadul Mourtada ndax daayira Muxaddamatul Xidma moom dégg nañ ko déggati ko bu siwee mbaamu yaatu ci bitim réew Cheikh Mamour moom Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ko yaatal ndax moo laaj daayira bi yóbbu ko ci continent yëpp ba tey jii buñ ne Amérique Europe Asie fenn fu ci ne ay jàmbaara nga fay jàpp ci liggéey bi te loolu lépp mi ngi bàyyi ko ci sunu jàmbaar jooju nga xam ne mooy jëwriñ Cheikhul Khadim ci bitim réew yàlla na yàlla guddal fanam eh, di siyaare mboolem umul islaam di siyaare sunu jëwriñ sëriñ Xaafiya Buso al imam ak mboolem waa daayira bi yëpp eh, mu mel ne tey jii nag sunu jataay buñ ko gisee fii ci jumaay Cheikhul Khadim ji mi ngi jëm ci eh, kàddu yi kàdduy waajal kàdduy séentu gan gu mag muy saxarul karim saxu ramadan eh, comme nan ko daan waxe rek tey nag ndigal moonu fi dij lu bàyyi ko ci sunu jëwriñ mu sëriñ xaafi bu sal imam ca nañ ko daan waxee bu ñu egsee ci kasu rajab mm, saxbaan ramadan mm, muy gan goo xam ne liggéey bu mag la ci daayira bi di taxaw ci lu jëm ci dogal lu jëm ci social boo xam ne dañ koy amal fii ci jumaa ji eh, noonu ñu ko daan waxee rek noonu lañ jotewaat ndigal mu bàyyi ko fa mu daan bàyyi ko eh, buñ tollee fii suñ yaafee daana waajal délégation bu dem ci ku tedd ki ki nekkal nekkal cheikhul xadim mu cheikh mamadul muntaxa yàlla na fi yàgg Euh, buñ joxee ndigal ci lam leen daan jox ndigal ci yeesal ci taxawaay yi nga xam ñi ngi ko daan taxawu ci lépp lislaam lépp diine ci jumaa ji rawatina ramadaan euh, ndigal loolu tam kenn ku ne gis na ne xalif général lim ciy jëf muy Cheikh Amadou Mountakha bu ñëwee moo ci jiital jëfam joxe ci ndigal ànd ko ñoom ba weer wi jeex euh, noonee tam lan jotee ndigal ci sunu jawriñ ji nga xam ne moo dox suñu digganteek fa muy jëlee ji ndigal muy sëriñ mu jox ñu digal ñuy kenn ci ndawi daayira bi di kenn ci ñiy jottalil daayira bi seeni kàddu ci wàllu bitim réew muy Assane Diop mi toog ñuy xamal nag mboolem àdduna bi yëpp mboolem jullit yi mboolem defkat yi baax yi ñi nga xam ne bu gan googu masaan ñëw ñu jàpp ci dugal ci seen ñaq def ci seen jëf ànd koog waa daayira bi ci taxawaay yi ah, jot nañ digal ci sëriñ Afia ngir ñu fàttali képp koo xam ne rek bu liggéey bi mosaan ñëw daanañ la ci woo euh, daan la ci bind leetar soññi suñ bopp soññi la ci euh, loolu nag dafay mel ne buñ ko waxee ñun nag ñu féete ci wàllu bitim réew wàllu diaspora bi te diaspora buñ ko waxee day mel ne continent yëpp yuy nekk bitim réew ñoom lañ ko àndal euh, continent yi nag buñ koy wax buñ ci njëkkee Amérique Touba Amérique nga xam ne fondation Muxaddamatul Xidma Amérique buñ ko tuddee euh, daañu tudd jëwriñ ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk muy sëñ Cheikh Jonn buñ ko tuddee ak jëwriñ sëñ Amsatu Laam soxna Jaara soxna Maymuna dañuy yóbbaale mboolem ku nekk amerique ñu xam ne gan googu nga xam ne mooy saxrul karim soox Ramadan agsi na euh, ñu xam taxawaay yéen ci daan taxaw kon ñoom tam ñoo ngi leen ci woo di leen ci waat ci taxawaay yooyee eh, bu ñu waxee Amérique nag moom faw ñu beral leen cant goo xam ne ndax noonu ñoo dox seen digganteek liggéey bi di coordonnateur yi ndax Amérique kenn ku ne gis na taxawaay bi nga xam ne fondation Amérique mi ngi koy taxaw ci jumaa ji ndax kenn ku ne gis na seen i jëf ci bu koor gi ñëwee eh, lim yu takkoo takk lañ fi indi bu ñu xoolee tamit lu mel ne gàmmu bu ju gàmm gi jubsee daayira bi sax seen xal dana dal ci bu jëfiwaat Amérique ñëwee noonu itam lañ amee taxawaay yu mag a mag yoo xam ne dañ koy taxaw itam ci maanaam màggal gi su màggal gi jubsee wàccaayu màggal gi seeni jëf day ñëw ba ci bàqiya bi nga xam ne mooy margo bi fii ci armeel yi kon ñoo ngi leen di jaajëfal tey soññi jëwriñ yëpp di beral cant tam ak ngërëm ci mbooleem diaspora bi képp koo xam yaa ngi bitim réew rek eh, ñun mat nañ seede ci ñoom te li ci sëñ Tuubaa digg de ñun mën nañoo gëm ne yéen dal na leen muy feeñ ngeen ci jumaa ji bu dee ci matériel luñ ci soxla seen jëf teew ba ci eh, muy oto yi muy machines yi muy saabu yi ba ci eh, lu aju ci wàllu communication bi loolu lépp seen jëf agsi na ci waaw kon nag ñoo ngi leen di beral cant di leen jottali cantuk waa daayira bii nga xam ne ñoo ñoo ñooy taxawu liggéey bi noonu tam lañ koy demee ba Europe Europe nag day dun bu yaatu boo xam ne buñ ci tuddee Touba Espagne giñ nekk nga xam ne foofu euh, association nationale muxadamatul xidma Fran euh, Espagne moom kenn ku ne gis na ay taxawaayam ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak daayira bi muy ci wàllu koor gi ak ci wàllu màggal gi ak ci wàllu bépp taxawaay euh, Espagne nag buñ ko tuddee danañ tudd coordonnateur général Serigne Dame Lo mu Cheikh Moustapha Al Karim Touba Awedo mi nga xam ne mooy coordonnateur général bi nga xam mooy soññee liggéey bi ci Touba Espagne noonu itam lañu ci jiitale ñu ne ci bopp réew ma jiite fédération Cheikhul Khadim Serigne Bakke Ndiaye ne ca bopp ba ak El Hadj Abdou Ndiaye euh, sëñ Mor Tambidou sëñ Hadi Touré. sëñ Abdou Sarr yi ak mboolem jëwriñ yëpp kon ñuy xam ne ne képp koo xam yaa ngi Espagne rek liggéey boobu tàmbali na gis nañ nañ ko daan soññee compte boobu nga xam ne mooy compte association bi tam di compte la sa banque moom itam moom lañ indiwaat noonu noonu tam dañuy demee ba Touba France Touba France moom buñ ko tuddee daañu tudd jëwriñ ya nga xam ne ñoo fa nekk euh, buñ jiitalee président fédération bu France bi El Hadj Bamba Thiam ak suñ Modou Fall kebe ak mboolem jëwriñ ya fa nekk yëpp du ñu fàtte itam suñ Modou Kara Samb ñoom ak ñan daan àndal ñuy soññee liggéey bi eh, ñuy xamal képp koo xam yaa ngi France rek ak ci biir France lu ko wër association nationale muxaddamaatul xidma France itam yàlla dogal na taxaw na eh, amal nañ compte banque boo xam ne ci moom moomeelu association muxaddamaatul xidma France la képp koo xam yaa ngi France itam. lépp loo xam ne maanaam dajale nga ko ngay jëwriñ nga soññee lépp lu ci jaar daayira bi dana ci jot kon ñoo ngi soññi ñëpp ñoom itam ci wàllu koor gi duñu fàtte tam imaam sëñ Bousso bi Bousso mi nga xam ne moo nekk ci kër Seexul Xadim gi doon imaam ak sëñ Cheikh Diouf ñeeñ ko àndal ñëpp association boobu itam leeraloon nañ ko sëñ Amdi Moustapha moo ne ci bopp bi ak secrétaire général bi muy euh, sëñ mbake Dieng sëñ Cheikh Niang ak trésorier bi sëñ Pam Ndaw euh, bu ñuy jógee foofu itam xam nga buñ ne Amérique ne Europe daañu wax Asie daañu wax Afrique euh, euh, bu ñu waxee Afrique nag muy dun bu yaatu moom itam waaye Europe itam xam nga ne ku ko tudd da nga tudd Touba Angleterre sëñ Fallou Diop nekk fa ànd ko sëñ Abdou Akim Mbaye ñu am taxawaay yu mag kenn ku ne gis na sax aj añi ajuma yi nga xam ne jaayante na noog Seexul Xadim ci ajjuma ju ci ne ba loolu mat la guñ gàddu yoral ko jumaa ji euh, du ñu bàyyi du ñu fàtte itam fédération Belgique ko tuddee sëñ Abbas Dieye sëñ Xaadim Mbégéré ma nga fa waaye sëñ Baye Fall nag it nga fa Baye Fall Baye Fall ba jëwriñum liggéeyu mu xadamaat xim doon jàmbaar ci di ko yaatal euh, bu ñu jàllee foofu tam kenn kun xam ne ne Italie buñ ko tuddee daañu tudd mu xadamaatul xidma Italie coordonnateur général ba di sëñ Daaru Touré ànd ko jëwriñu liggéey ba muy sëñ Ibrahima Ndiaye xasida online doon kenn ci jàmbaar yi euh, moom tamit fuñ tuddee réew yi da xam ne itali ndax itali moom am nañ ay taxawaay kenn ku ne gis na li ñuy indi ci koor gi bu ñëwee kon ñoo ngi soññ képp ku ne itali euh, di wax itam lu mel ne yeneen réew yu ko wër bu ñu waxee Italie daañu wax euh, lu mel ne Portugal lu mel ne maanaam Mm, euh, maanaam lu mel ne maanaam euh, Turquie lu mel ne maanaam Grèce maanaam lu mel ne maanaam euh, maanaam Argentine Argentine buñ ko tuddee daanañ ko dégg ngeen taxawaay yi ñuy def ak Brésil ñoom itam waxtu koor gi masaan ñëw daanañ taxaw taxawaay bu mag suukar su bari di fa jógee di ñëw fii ci ci liggéey bi muy waa Touba Brésil nañu fàtte sëñ ay mbiru ak jëwriñ ya nga xam ñoo fa nekk bu dee arsatin sëñ Mortala euh, sëñ mortal Sarr moom itam ma nga fa euh, bu ñu duggee nag ci réew yi nga xam ne mooy Afrique kenn ku ne xam ne ne Afrique buñ ko tuddee dañ tudd suñu jàmbaar ji nga xam ne damay wax ne ambassadeur u Muxaddamatul Xidma muy sëñ ma Fari Ndiaye doon jàmbaar joo xam ne bari na fu mu yaatal liggéey bi ci wetu Afrique euh, ànd koog sëñ tuubaaloo Lo d'Ivoire Côte d'Ivoire nag buñ ko tuddee dañ tudd sëñ Magumba Thiam sëñ eh, Moustapha Fall eh, eh, sëñ Touba Lo ak mbooleem ña fa nekk ñëpp sëñ sa dex kan bàyyiwuñu kenn buñ demee Gabon gis ngeen sëñ Badda Seen ñoom ña nga fa ak mboolem buñ ko tegee ci su loxol sëñ Baddo rek da koy jàllale ci képp ku nekk Gabon bu ñu ñëwee itam Touba Mali gis ngeen taxawaay bu mag bi nga xam ne ñu koy taxaw ci wàllu liggéey bi nga xam ne moo jëm ci daayira Muxaddamaatul Xidma ci ndogu yi ci màggal gi ci bépp liggéey boo xam ñu ngi koy wax rek waa Mali moom bu ñu ko déggee rek dañuy daal di teewal seen jëf kon bu ñu ko tegee ci loxo sëñ Maam Balla Gueye nga xam ne mooy jëwriñu daayira bi loolu ñëpp danañ ci jot mu jàll ci ka fa nekkal Cheikhul Khadim muy sëriñ Maam Balla Mbacke euh, duñ fàtte secrétaire général itam ñoom sëñ Mbaye Thiam ak sëñ euh, Maam Góor Dia ak mboolem ña fa nekk ñëpp. Euh, noonu moo waxoon tam ci fu mel ni itali bi ma tuddee sëñ Ibrahima Ndiaye xasida online tudd sëñ Daaru ture ak ñi àndal duñ fàtte sëñ Modou Mbaye Thiam moom itam Touba Monde bi TV euh, Italie nag fuñ ko tuddee euh, ba tudd sahrul karim sahr ramadan kaas asete yii nga xam ne gis ngeen ñu koy doge ci jumaa ji ñoo koy fàggu te Euh, ku xool gi weesu indi nañ ci kaas yoo xam ne takku gi ëpp na ndax woor nañ ci ba weer wi jeex ba màggal ci ba gàmb ci loolu tam muy liggéey bu mag kaas yi tam ku ko tudd taxawaay yooyu danga nga indi sëñ Cheikh Awa Balla moom Cheikh Mamadou Fadal moom nag damay wax ne sax la sëñ Saali waxoon moo ko dal mooy daa jiital jëf ji doo ko laaj jëf ji mooy jiitu laaj bi ndax koor gi li muy eh, ni mu toll am na ci bis boo xam moo ko sasoo waaw ba noppi takk ci laxasaay goo xam ne di yaatal liggéey bi ci bitim réew rawatina fu mel ne itali ba kaas yooyu ci yaatalam la juddoo kon yàlla na yàlla fayal nu ko te wéral nu ko noonu lañ ko tuddee itam mbooleem njabootul seexul xaddim gépp mboolem umul islam yëpp ndax xam na ne jumaa ji moom bu fi yitte ñëwee rek képp kuy ab jullit rek tey def ko lu baax am nga yéene indi fi sa jëf kon nag jërë ngeen. Eh, noonu tam lañ wéyee la soññe bi nag ci. yeneen réew yi nga xam ne tam maanaam mooy yin tuddut ndax bu ñu waxee Afrique dafa yaatu diggante Burkina fa nga Burkina Faso mi ngi fa Cameroun a nga fa Ghana nga fa mm, yeneen réew yu yaatu yu bari ña nga fa Nigeria ma nga fa euh, sëñ Wagan Faye duñ baale duñ duñu fàtte kenn euh, liggéey boobu nag muy liggéey bu mag boo xam ne gis nañ daayira Muxadamaat Xidma taxawaay bi muy taxawu ci koor gi koor gi nga xam ne eh, buñ ko xaymaa ci at yi weesu gis nañ ne lu danay dogal lu ëpp eh, ñeenti junni doomu aadama fii ci jumaa ji te it ci biir dogal googu tamit eh, dafa am loo xam ne ki fi nekkal Cheikhul Khadim moo nu ko dénkoon waxoon ko sëñ Afia ne liggéey bi tam nañ ci bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy ñi nekk ci jumaa ji nga xam ne seen xëy seen ngont lépp jumaa ji la loolee itam sëñ Afe dugal ko ci muy social boo xam ne gis ngeen suukaru koor yi bu ñëwee ni ni social bi daayira bi njëkkee danay dem daare kaamil set képp koo xam yaa ngi nekk ci daare kaamil ñu indi la suukaru koor ñu xoolee itam ñi nga xam ne ñooy taxawu jumaa ji ci di ko xayal di ko taaral ñooñu itam ay suukaru koor day war ci ñoom ba ci ñi taxaw bayaan bi loolu lépp muy liggéey boo xam ne daayira bi moom yàgg nañ koo leeral daanaka li ëpp ci seen tàllal wala woote mooy lu mel ne saxarul karim ramadan aksi ñu woote taalibe yi eh, soññiwaat ñëpp ginnaaw jot nañ digal képp ku ci daan jàpp nga jàpp ci wala lu mel ne màggal kon nag jotaat nañ digal nag ci sunu jëwriñ sëriñ xaafiye bu sal imaam ñu soññiwaat suñ bopp soññi képp koo xam yaa ngi ci bitim réew ci lu jëm ci ndogu yi lu jëm ci koor gi nga sooñ sa bopp soññi képp ku la gën a jege ñu daal di ci taxaw nan cee daan taxawe fii nag damay wax ne moom bàq bu tooy la lu fi waay ji rek moom dang nga ko meññile sëriñ bi nag moo fi diggee wax ne képp ku ci feeñ da nga feeñ kon yàlla nañ ci dajeeg barke waq de awaay jële si na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo inna li si na saaraxon li xidmati fa lahum diyaara wasal jannati jërë ngeen jëfati seen mbokkum taalibi a san Diop